mu dëkk du ay màtt melentaan FC laajam dama tay ci bëree daan amatuma lu may prouvé faw ma dem ci yeneen base du ko am la top 5 pënd bi jóg la top 5 pënd bi jóg la top 5 pënd bi jóg dama la daan ndong bi dal sa kanam bi pënd bi lay tëmbal top 5 pënd bi jóg non attendez waruma def lolu parce que vous yéenay samay gain en fait man yéen rek lay top top quant à Big Pathé ak Madi ñom dina len teumbal top 5 pour bi jog mais yéen duma len def lolu donc salam la mi fa j'espère que vous allez bien Comme d'habitude, vous êtes en compagnie de votre grande et ravissante chroniqueuse Kenza 221, bien sûr borom matricule 221 xaritu ñep et dalati télé ak jamm ci suñu chaîne YouTube Kenza 221, la chaîne des news la chaîne des plus belles chroniques, mais aussi la chaîne qui vous fait vivre les meilleurs moments du game. Donc, jusqu'à présent, vous vous êtes pas encore abonné. <laughs> J'aimerais bien savoir ce pour abonner. Abonnez-vous. J'insiste, abonnez-vous et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos nee naa leen bépp actualité hip hop galsen boo bëgg xam ci man rek ko donc bu leen fàtte di abonné en même temps ngeen activer cloche pour ne pas rater les vidéos qui suivent vous jouez à 1xBet n'oubliez surtout surtout pas d'utiliser mes codes promo Kenza 221 wala Kenza c'est écrit en majuscule et c'est collé te dina leen permettre ngeen gagner bonus ba 100 pour le premier dépôt jusqu'à 150 000 francs CFA vous jouez à Melbed aussi, n'oubliez surtout pas, non mais surtout pas, d'utiliser mon code promo KZ 221. Dina permettre aussi de gagner bonus de 100% pour le premier dépôt jusqu'à 65 000 francs CFA. Oh my god! Non mais ce ne sont pas des lol, ce ne sont pas des lol guys. donc si vous voulez jouer vous utiliser code promo tant que ce la la vous bon sama gars une réaction concernant la vidéo top 5 de Deep DundoGis. Gis. alors top 5 fait partie du projet d'album de Deep Doundou intitulé LF LF bien sûr qui signifie tout simplement le fil à mais top 5 dafa nekk ampleur bien avant la sortie du projet maintenant naa ne ci jouru listening party bi ci bopam la sound bi jël ampleur lu ko waral moy Dip Doundou Guiss dafa wax ben bar jëmele ko ci ki nga xamanteni ne ni moo di Ngaaka du coup affaire bi jur polémique gaay commencé ko partager mu jël ampleur bien avant la sortie du projet d'album lepp fi lañu fekk parce que si vous vous rappelez le 1er décembre la waroon génnee album bi mais malheureusement de ko repoussé won ba le jour du 4 décembre Bien sûr, concernant la réaction, nous allons expliquer davantage. Nous allons tout vous expliquer. Donc, let's go, some guys. Maintenant, nous devons des réactions top 5. Allez, nous devons. Mais avant tout, guys, j'aimerais bien vous assurer que la vidéo, elle est très, très, très magnifique. À vrai dire, Dip ne cesse de nous surprendre. Dip Dundugis, vous avez clip, clip, vous avez qualité, dang koy sétane xam carrément ki lépp lu war ci clip bi da ko def et da ci dépenser xaliss bu weex tal côté réalisation bi nak gis nañ la maison de production Kuroprod ak euh, yenen élément ñom ñoko réaliser réalisé seen liggéey rafet na trop. clip bi bokay sétane da nga naan li parc magicien lañ ko tourner parce que tellement que de doo par contre nak sama gars yi dafa am remarque buma def et du man rek je sais que plusieurs personnes ont fait le même constat muy lan d'habitude Dip Doundou gis ay kilibam wa Reverse Studio mais ci clip bi di top 5 dañu gis du kenn ci ñom ko def réalisation bi mais en tout cas amna yenn élément yu nek Reverse Studio yo xamanteni ni participer nañ ci clip bi collaboration ou pas je suis au milieu wax len ma seen avis ci commentaire concernant loolu on continue ah! yéen a ngi dégg bit bi non mais Wanda Beat gars est-ce que foog ngeen ne Wanda Beat parce que tellement que beat but est tëgg dafa nice trop ça. man j'ai beaucoup adoré la composition mention spéciale à toi vraiment j'en profite pour les féliciter en les hommes de l'ombre ku ci euh, Wonderbit. bien sûr qui pourquoi xamante ni yow homme de l'ombre nga rek les féliciter parce que vraiment ligue, c'est très remarquable les beatmakers les réalisateurs les DJ am seen liggéey dafa am solo non mais je vous ay ca ñu continuer lu tax ma gëj fi du ay mattu melentaan UFC laajom dama taay ci bëreet daan amatuma lu may prouver faw ma dem ci yeneen baas mbër kaamil la may daan du ko am tuuti mbërëntaan tëmbal la top 5 pënd bi jóg tëmbal la top 5 pënd bi jóg tëmbal la dam la daan sa ndong bi dal sa kanam bi weex pënd bi jóg alors Dip Doundou Guiss nee na du ay màttu melentaan moo tax mu géej fi par contre dafay géej parce qu'il n'a plus rien à prouver dans le mouvement du hip hop galsen et quand UFC laa jëm dama taay ci bëre daan UFC boo ko déggee mooy maanaam ligue mondiale bu gën a important ci ay sport de combat contrairement à ce combat bi nga xamante bien sûr c'est local ma gëna xam mais si nous analyser ce bëgg a wax on peut dire qu'il fait référence à sa prochaine sortie manam son prochain album que bien sûr euh, dina nekk un album international mu am ci featuring avec des artistes internationaux mu un album qui xamni très, bu génné boom, lay def yéen a ma gëna xam waye nak quand dib dund top 5 maanaam rappeur yëpp la yóbbu top 5 top 5 ci émission ban tamba lañ ko xamee et mu ngi signifié maanaam 5 meilleurs jël yi gën a rafet ci ban tamba ban tamba benn émission la boo xamante ne nii mu ngi doon daw sur la 2 tv tonton Bécaye moo ko doon def juste après ñu gis ne doomam moo doon continuer li nga xamante ne moo di émission bi. donc mbër yi ngeen gis ci clip bi nii c'est bel et bien normal en fait c'est bel et bien normal ngeen gis ay mbër ci li nga xamante ne moo di clip bi. et quand il dit mbër kaamil la may daan du ko am tuuti mbërëntaan foofu il veut juste nous faire savoir que moom un vrai rappeur un lyriciste moo ko mën a daan mais pas koo xamante ne ni ay lyricsam dafa pauvre loolu rek lañuy bëgg a xamal foofu noonu on continue. dëmbal la top 5 pënd bi jóg lu tax doo leen understand li mën a di jóg dóor mu daanu jugoo amat seen a gone gi loo ba tey nangu wuñ ñi dafay mel ni gëmuñu got Le tax doo understand di job genre il veut juste nous faire savoir que mom visé le niveau national mais niveau international le par contre nak gars xamuñu comprendre mu ne du di job mais en même temps dafa la référence ci combat wu Modulo ak ki nga attendez Big Paté wër na ndomb ki nga xamante ne ni moo di Madi mais par contre Mbadi mbot na ki nga xamante ne ni moo di Big Party Pro <laughs> à vrai dire boo leen di seetaan euh, vidéo bi di bàyyi xel lyrics yi dafa am coïncidence parce que lépp lu mu wax rek da ngay gis image bu mel noonu mooy feeñ on continue. dóor mu daanu jugoo ëmmat seen ak gone gi loo ba tey nangu wuñ ñi dafay mel ni gëmuñu got ya ya dëgguñu mbot bu nomb kor du teeyaay te kaata puis sëriñ tu job ma nga bëggoon du man ay pétaw nga ay mus di ma mel leen te kaaral bi chef d'entreprise laa ne leer man du ma def sans jël risque Sadio Mané laa doon ci bi sàccuma dama job gis naa ay changement dama yow waaye man ak sans comment dinaa jóg mbaam du xaaja mësa yeew ba fas jom bu mag kan nga rey à part yow ah! ay sànk lañ ak ay yongeen dëkkee naan dangaa yor chef d'entreprise là, laa nay man duma def sans jël risque Sadio Mané laay doon ci ville bi gars on connaît tout Sadio Mané il est quelqu'un dans le monde entier référence le bir Sénégal mais tamit référence ci football bi muy def suma né bir Sénégal c'est parce que gis nañ ci social bi muy dox gis nañ limu def bir Bambali tabax fa ay hôpitaux tabax fa ay école di jappalé habitants yi fofé tout référence la aussi ci football bu muy def parce que là képp koo xamante ni yow bëgg nga nekk pro tu rêves être comme ki nga xamante ne ni moo di Sadio Mané Dip Doundou aussi il veut juste nous faire savoir que moom référence la ci milieu hip hop bu mu nekk donc boo leen xoolee sax ki nga xam ne moo di Dip Doundou Sadio Mané ils sont sponsorisés par Pepsi donc Lolo waral mu chef d'entreprise la nay leer man duma def sans jël risque man mii chef d'entreprise la ah hein, en Big Pathé man du ma def sans risque risque rek laay doxee affaire yi risque la <laughs> yéen a ma gën a xam donc c'est clair et net mais aussi dañuy am champ lexical ci li nga xamante ne ni moo di animaux parce que la bien mentionné xaj mbaam fas ak sànq lañ te loolu yëpp ci animaux yi lañ koy classé. on continue dans top cinq de Deb Doundou Guiss tëmbal la top 5 pënd bi jóg. bég fi du ay mag du melentaan UFC la jom dama tay ci bëre e dan amatuma lu may prouvé faw ma dem ci yenen base yenen base la may dan du ko am tuuti tan ya ya ya, ya tumbal la top 5 pënd bi jog e pënd bi jog men tumbal la top 5 pënd bi jog ra ra ra tumbal la top 5 pënd bi jog dam la dan sa ndong bi dal sa kanam bi weex pënd bi jog ya nga ne tuñ rap te nga tële fessel fu xat ne nga defatuñ rap te nga tële fessel fu xat lii je me dis que c'est une réponse envers certains MC yi nga xamante ils ont tendance de critiquer yenn sen moroomu MC yi naan defatuñu rap dañuy yak rap bi dañuy rab mbalax dañuy li dañuy la alors que ñom ñooñu buñu teggone concert fu xat du fess contrairement ak ñi nga xamanteni ñom lañu la nekk di critiquer à chaque fois ñom même bu des defatuñu rap bu ñu concert dina fess gaay dina ñëw assister ko ñu dund show dund lumière dund extraordinaire donc fait, je me dis que c'est une réponse envers ces MC qui ont tendance à parler sur ça ma gëna xam on continue pexe njuj njaaj dinañ teefe suñ ndànk kees yi pax nga béy si àll duma gaynde guñ jàpp yeneen fi càngte presque ñetti at di génnewul gàtt noo def ma tëmbal leen top 5 pënd bi jóg amuñ góomu xol ni gë seen xol moo dëkk si gonk tëj sa xeel tëji ma not yi bés booy dee ma jiitu sa rëcc waa mais Big Paté Big Paté xam nga MC bu doon lëmbal ba président xamoo ko mais Madi est-ce que tu ah bon you don't know man I know gars <laughs> li nak mo moo polémique bi yéen a ma xam donc li euh, clash la envers ki nga xamé ne ni moo di parce que si vous vous rappelez ka blendé mo doon fait fecc bay bëgg dé devant monsieur le président de la République du Sénégal Macky Sall Lolu motax mu clash ko né ko sa MC King la lëmbal la don def ba président jóg et nga Blindé moo fi naan mo moy King bi d'ailleurs loolu la tuddee King Baba pas di dund gis kessé hein ah, parce que gis nañ gaay yu bari buñu clash nga kable ne ci lool lañ koy togné ya done doon le prési affaire yooyu quoi légui ma di xam nga ko RAS <laughs> on continue gaay yi wax xaalis ñu caabi sen làmmiñ doon ay xaabi lampi faadu kaaf ni nga jaandu naaw bi deew du agsi booy wax xaalis ñu caabi seen làmmiñ ni xabilaam fi faadu kaaf on connaît tous xabilaam xabilaam ben influenceur sénégalais la et sur ces plateformes il a des millions et des millions d'abonnés il a aussi des millions de vues. Mais à travers ces vidéos, on ne voit pas Khabilam parler. Vous avez vu vidéo Khabilam moi Moi, je jamais vu. Vidéo que Khabilam il fait juste des gestes. Des gestes réglés. donc Dip Doundou Guiss li mu bëgg a wax il y' a certains rappeurs qui ont ne boo leen di wax waxu Khalis, <laughs> duñ la faale il préfère sa terre caabi seen euh, seen gémmiñ comme ki nga xamante ne ni moo di Madi j'espère que yow doo def loolu non comprendre nous parce qu'actuellement, actuellement dëkk bi dafa xaw a métti quoi yaa ma gën mais quand il dit FIFA du CAF foofu dañu am une technique appelée la comparaison ba leen xoolee Dip Doundou Guiss moom mooy wax naan moom de président FIFA d'ailleurs il y na fi benn son boo xam ne clash la intitulé président FIFA clashera pour rappeur FIFA la fédération internationale de football association donc c'est international bien sûr mais CAF la confédération africaine de football donc on suis au niveau international par contre a un drapeau et CAF ils sont au niveau national on continue man. <laughs> on connaît tous Samba Ka Samba Ka sama mbokku pël la mais ben tiktoker la woon boo xamante ni par jour il publiait plus de 20 vidéos <laughs> il publiait plus de 20 vidéos À mon fi buzz bien sûr tout le monde parlait de Samba Ka mais dañu dem ba benn certain moment déggatuñ ko par contre depuis Doundou Guiss li mu bëgg a wax mooy am na yenn rappeurs yoo dañ doon comme pas possible de génne à chaque fois mel ni kuy C'est une buzz vite fait la doon nañ leen dégg mais actuellement kenn déggatu leen il a fait référence ci Samba Ka joxe ci exemple mais boo vous bàyyi xel ah Dip <laughs> Doundou Guiss dafa utiliser le flow Samba Ka vous fu muy maji, rang yow rang yow rang yow parce que Samba m'a dit wax eh rang rang yow si vous vous rappelez Samba m'a dit doon wax FC laa jëm damaa tay ci bëree daan amatuma lu may prouver foog ma dem ci yeneen base mbër kaamil la may du ko am tuuti mbërëntaan yee tëmbal la top 5 pënd bi jóg e eh, pënd bi jóg man tëmbal la top 5 pënd bi jóg pënd bi jóg tëmbal la top 5 pënd bi jóg dam la daan sa ndom li dal sa kanam gi weex pënd bi jóg tëmbal naa leen ñoom ñëpp top 5 pënd bi jóg mënuñ ci dara hein muy Big Paté di mari yéen a ma gën a xam <laughs> alors gars yi gis ngeen dañ doon def réaction concernant la vidéo top 5 de Dib dund Guiss mais sur ce dama seetlu 3 points et je me suis dit foog ma partager ko ak yéen comme ça après yéen tamit ngeen mën a joxe seen ci commentaire yi premier point bi mooy euh, ci biir sound bi dib dund Guiss daf ci utiliser ay actualité parce que boo leen dégloo lyrics yi bu baax a baax am na ci yoo xam actualité la comme lu ci mel clash bu mu clash Ngaaka blendé ce MC King la lëmbal la doon def bu président parce que vidéo boobu ba mu viralee bu un an ci la yam wala est-ce que sax mat nako mu jël référence ci ki nga xamni aussi modi Sambaka Sambaka jusqu'à présent mën naa ne actualité la parce que ces vidéos étaient très virales gars yi dañ ko doon gissé tout ça donc lolu yëpp actualité la. sallallahu alayhi wa TikTok bëggee na len di. donc du coup automatiquement je me suis dit même bu fekkee album bi paré na bu yag sound top 5 bi amna ay modification deuxième point bo len xolé sound bi ego trip la ego trip bien sûr mais ego trip bu and ak mais je me suis dit que Dip Doundou gis dans na sand gaay yi pic yu gëna dal yi foofu sax pic yo xamni boko don dégg rek da ngay non mais damn shit ça c'est du lourd contrairement ak B je ne je sais pas bien sûr mais point la bo xamante fallait que je souligne ko ak yéen ngeen def remarque bi euh, certaines personnes qui euh, qui vont suivre la vidéo ñom dinañ vont pas xel ci limay wax. troisième point bi que la vidéo bu maté une semaine ci la et actuellement mu ngi ci plus de 250 000 vues sur YouTube. comparé avec les vidéos précédentes de Dip dundu gis dama une vidéo top 5 bi du sax 2 ci vues yu Dip Doundou auparavant parce que sur les vidéos précédentes de Dip Doundou Guiss da daan am ay millions et des millions de vues contrairement ak que nga xamante ni moo di top 5 yeggagul sax 400 000 vues waxatuma 500 000 vues où est le problème wala qui est le problème xëy na tamit période bi mu ko génnee la parce que là actuellement tout le monde est concentré à la canne gars yépp ci concentrés bi lañ concentré mais man man je me dis que Dip Doundou Guiss dafa waroon a génnee vidéo bi bien avant la sortie de l'album lépp fii la ñu fekk xëy na bu ko génnee woon mu nekk extrait album bi la vidéo bi doon def bëm doon na gën a jël ampleur gars yi dinañ ci gën a gën a gën a wax mu jur polémique loolu laa gis mais lu tax mu demee ni xaw ma ko donc ku ci am lépp lu la leer wala nga analyser affaire yi mën nga ñu ko wax ci commentaire yi avo bàyyi naa mu tëmb donc on faisait une réaction concernant la vidéo top 5 de Deb Dundugis. Vous wax leen seen un ci commentaire yi noo réaction à vos claviers bàyyi naa mu une bu à vous à ma page Instagram Kenza l'officiel abonnez-vous à ma page Instagram Kenza 221 sur Snapchat il y a beaucoup de contenu que je fais là-bas donc abonnez vous c'est écrit Kenza Diallo 21 sur TikTok Kenza National donc abonnez leen partagez partagé lien yi ngeen et tout yéen a ma gën a xam man ak yéen ñoo far man maay seen chroniqueuse te man yéen rek laay vraiment aw ma seen fay quoi. sur ce gros bisous à vous love you all à la prochaine tëmbal le top 5 pënd bi jóg tëmbal le top 5 pour bi jóg Eh, tëmbal le top 5 pënd bi jóg dam la danse, sa ndong dal kanam gi weex pënd bi jóg. rang yow.